waltatufi bi nasratin tatinarsore ñi ngi taawa ndemb ci bi ñu koy laaj turoo nga xam ne mooy al adlu maanu mu tekki woon koo ni daal kenn ku ne cër ba nga cëre woon ci asal ba nga ñëwe fii ñu jox la ko nañ la ko digge woon loolu nag cëre wëy a wëy wa mimma ansadahu sayyidina radiyallahu anhu bokkoon na ci loo xam ne daan na ko woy cheikh yàlla ko yàlla gërëm ko addaaw te gërëm loo ko lan la wax man faatuhoo xusnu wa ci faata ihsaatuhul ihsaanu wa man raani raal tahqiqa wa taysa wa eh, tibyaanu eh, saatu fil ismi fii kasfin wa fii kitmaani fa lii xafaaun wa lii sirun wa lii laan lama xalas naa najaw naa mintanaa jiina awxalanaa fawqa maa narjoo munaa jiina waqad jalaanaa tajali min majaaliina faman la ko maxwana xata yu jaa liina ataa yu jaa liisu naa wala yu jaali na waa ji woy yu daa sax daa na ko wax man faatuwoo koo xam ne rëcc na ko bi maanaam ñàkk na xut na wa ci rafetaayu sama wucc bi sama rafetaayu wucc bi ku ko ñàkk te moom dëgg-dëgg mooy wuccu rëdd sama rafetaayu jëmm ji kum ko rëcc faatuwoo ci na ko al ihsan rek xam nga léegi kon xasan yoo xasan ak ihsan ay usine bi lañ sama jëmm ji kum rëcc xamuloo taaram bi kon xamal ne rafetaay rëcc na la wa ma raa nii ku ma gis raa gis na ataqiqa lu dëggu wa tibyaan ak lu bire bire bi man man amatiyan ku ma gis gis nga xaqiqa yi nga tibiyaan mooy li nga xamante ne mooy biti boo bëggee xam lan mooy dëgg-dëgg ba ak lan mooy tibiyaan bi boo ko boo ko ku ma ku ma gis rek gis nga ko de moo tax ñu di ko ñu tuddee ko aynil maarif yow yaa jëmi maarif yi de saa tu naa fi gis ci yaram fii kas fii ci ñoreeku gi ma ñoreeku ku xam ne am nga kësu rek hmm. gis nga sama yaram rek ma fi nekk saatu fil kës wa fi kidmaanin ak mu nekk ci kidmaan bu nekk ca biir hmm. feeñ naa ci nëbb mooy xel hmm. naa ci biir gis mu nëbboo ca biir ci ci xel xam nga woyu dëgg-dëgg yàlla tey la gën a neex ñu ngi firi ko rek tey la gën a neex ñu firi ko ndax <laughs> boo koy firi doo ko firi soo ko firee ñoo xam ne dugguñ ci fii lii kii bi da koy wax ci kaw rek mm-hmm. bàyyi ñuy dem cest <laughs> à ñoo xam ne xam nañ luy feeñ ci ñu ne mu feeñ kat mooy yaa koy xool mm-hmm. ndaxte ba utta du xut waxta tam ta kon mu ngi fi ko sol woo fi kitmaan xool de mu ne fa lii am naa man man seet xafaa u am naa nëbb boo xam ne kenn ma gis moo tax ba bàyyi ñu rekk xam kii moom mu ne ko yow daal jaar nga ci biir xaqaayiq yëpp ci xamewuñ la ndaxte xam na ne ba ñuy proposé asamaan ak doj ak suuf xamewuñ kañ leen te kon jaar na seen biir te xamuñ ko kon nag fa lii xafaw wali am naa siru siru wali am naa ihlaan ihlaan ñett rek am naa ko man am naa xafa am naa sirru am naa saayir moo am dëgg de <laughs> ndaxte xam nga sirru dafa am nekk ci biir ñu di ko xafa xafa mooy la nëbbu sirru mooy secret bi ak nëbbu ci biir secret bi ñu ko xafa mm-hmm. moom nag mooy xafa mooy amaana ba amaana mooy xafa nag mm-hmm. <laughs> dégg nga ñu naan sirru sirru lii sirru ak ah dëgg la sariya mën ko sirru waaye xafa ma nekk ci biir sirru nag kenn ko ko mos a gis kenn man mii nag ah marta ah fëlii am na xaba un sirun wali ilaanun am na ilaan maa fàngaaral nii man maa am ñett yëpp moo tax bañ daw ci xaqaayiqi mu daw ci biir bañ dawee ci ni sa daw ci biir bañ dawee ci nasar yi ci biti moo dawaat ci biti fii ñëw moo dawaat fii ci biti yëpp dawat ay daw waayam kon nag ndaxte xam nga ne euh, nu bóotu mut mm-hmm. a manifester mm-hmm. ndaxte roogu mën naa manifester mm-hmm. ndax xol mën naa manifester kon kan moo manifester oo oh, yaram yaram nag moom gën a am na xel nag mën naa bàyyi xel la ñu ko bàyyi ànd gaay foofu mu dikk nag ci yaram gi manifester leen ci biti ñoom ñëpp ba yonent kay dox kan na sàngoo kan la sàngoo yaram wilaaya gi mooy doxal wilaaya kan la sàngoo yaram xilaaf mooy doxal comme comme sàngoo yaram kon nag ñett yi kan la man kenn lii lii <laughs> ah, ah ah lii lii mooy xam nga lii maarifa bii la baa indi maarifa wane leen wane leen ma wane leen ma bàyyi dafa indi bagage yi nag tiri leen tiri leen gars yi na gën sangal leen sangal mbóot la mbóot la mbóot la muy ay wuréy réy réy la ilaha illallah mbóot la rek bu yomal xiyaamee yàq na liggéey bàyyi bi yàq na liggéey bi yëpp bu yomal xiyaamee ku fa demee mbóot ndaa bàyyi mbóot loolu yaa ma dama lay dóor ba nga de a dee man may ni leen ka c'est maarifatan yëqiniyan suudiyan xayaaniyan maarifa bi am ñeenti ñeenti ki la am yëqin wóor na la péng li mën a ut lii la yëqin suudin yaa ngi jàq leen moom xiyaanin yaa ko gis ah lii nag ma indi leen ko nga dikk ba fii nag takk say ba naan ma bu leen fontoon moo tax bi lay baat bi la mu ngi nii mu ngi nii de fa lii xafaa ko wala sirul wali ilaan lamaa xalas na bañ setalee najee naa lañ mu ci minta naa ji naa suñ de yaale ko xam nga yàlla wax nañu yàlla yaxam na moom si war najwaa najwaa bi bañ amee ixlaas nag setal wécc wécc wécc wécc te amee nag ak mucc ci suñ di yàlla gi bëri nañuy ñuy diyaale yaa rabbi yaa nangam waaye sa diyaale gi yólloo yólloo gisoo gisoo résultat ñun nag lama xalas na na jaw naa mintana ji naa suñ ne suñ ndey ndey la ndey la nag cëriñ mucc xam nga ñu ngi ci ndey bi fii naa la danga la boo déggee ñu léegi bàyyi bu bu arsi <laughs> ci ndiyaale ah? ah aw xaala naa envoyé nañu envoyé xam nga message ah. xam nga message mi nga doog a dikk ba yëf yi pare nag message yi doog a dox nag hmm. moo tax gis nga lépp loo dégg ci biir loo gis fii yonent message bii message ba moo taxu ba message ba nag bëgg mag bëgg a xam ne message jot na léegi hmm. ñu defal nag téléphone ba indi message hmm. yónnee message capté message kon nag léegi ah léegi nag aw xaala lañu lañu ma lañu envoyé lan lañu envoyé fawqa ma narjoo lu paase lañ yaakaaroon mu naa ji naa kañ doon déyat kañ doon déyoot bañ setee la ñu envoyé message boo xam ne yaakaaruñu woon ni lii liñ ci tey xam-xam bi ñuy waxee ni yaakaaroon nañ ko yaakaaroon nañ ko dem tey nag bañ la tax ban ñoo jël message bi ah, sa téléphone bu fekkante ni dafa am sikk message doxati man dem ba teg sama connexion daw te yow la demal seete nga topp la sa message ah benn yaa jeexal connexion <laughs> wala sa wala amuloo chargement sa courant amul c'est ndax boo il faut nga charge courant nga am léegi nga am léegi carte bu abonné nga am abonné ñu nga yónni message nag kon ñett ngay am boo amee ñett yi nag ah abonné nga ci orange orange moom bu la moom nga am ko ab nga abone nga am nag di nga am def connexion nga am ñaar fay nga ba ko defee nag nga dem saat si courant bi nga am batterie bi mu am ñett yi soo ko defee rek message day daw ah <laughs> ah kon nag mi ngi nii tey ñun ñett yi ma setal Mouhamad yaag Ahmad yaag boo ci setee message yi ñëw bu tilimee doo dem la ko tax nag mooy boo fi amalee Mouhamad ak dem da nga leen di dàq ñu toogee ko su ko defee nga def ci nga def direction ak ko yow sa boo ko jot foo ko jotee na ko jaar ci téléphone jàmm foo ko jotee du jëm kii ñun ñëpp ko jëfe waaw léegi nag <laughs> léegi nag dama bëgg <laughs> ah <laughs> ah partage boo fekk na fekk na xamante ni mooy eh, la lay partagé loo xam ne ne fu mu ko jëlee de ah. bu mën laa partagé de waaye soo xamul lu mu lay kal boo xamul lu mu lay kal da lay kal ah, ah. kon nga nekk nga bañ ko defee aw xaal naa foofu maa nar joo yónnee nañu message boo xam ne passé nañu yàqooroon mun naa ji naa kenn xam ne mun na déel waqat jalaana feeñal nañu tan tëjali tëjali fii ma jaalii feeñee kowaay ba tëjali bi nga mooy tëjali pour génnañu ne tëf photo bi gën tëjaliñ ba te mm. la ñu manifesté na acca génnal mm. acca génnal photo acca acca maxtaar acca baaba acca acca acca acca ci tajriba la ñu génne waqat jalaanaa tajali fii majaalina ah fa man lahu mahwana hatta yijaalina fa man lanaa fa man lahu kan moo am mahwana effacé ñu ana kan moo ñu mën a effacé doo ñu effacé xataa yu jaa lii naa ba mu mën a ak ci ñun mm. ndaxte balaa mu laa tëjee ci yow balaa moo tëjee ci yow rek mm. dañ laa fomp fomp ma nga seet wicci wicci wicci mm. mu tëjee ci mu ne fan la ñuy jëlee kooka ne mën a fomp ah, na su ko ñu mën a am nag xataa yu jaa lii naa ba nga ak ñun. fu ñu ko jëlee. Mm-hmm. ngi waxee boppam ak boppam mm-hmm. lii nii maa koy waaye làmmiñ bii. dëgg dëgg dëgg dëgg laa ngi nii hmm. martaba mbàkkoo du ko moom lii dina ko wax wax boppam li moom martaba bu moo waxee wax ji hmm. xilaafa bi xalaat xalaat suñu wax wax ji hmm. ah, waaw lay wax <laughs> ah kii ka maxtaar rek ko xam xam ah kii ak xam ne moom xam ko la maxtaar rek sukkirat <laughs> eh, tudd ana wax nañ ci Seydina Moussa xaalaa nabiina yal nekk si nabi bi wala asalaatu wasalaam euh, mu ne Marie de feebar waxtaan wax nañ ne Moussa dafa feebar ba yàgg maradohoo feebaram ah yàgg lool fa naadatu euh, dar ko o xosbatul ab ñax ñax ak ak ñax ak dajib maanaam hmm. ne ko am e eh, Moussa kul nii lekk ma hmm. Moussa ngaa bëgg wér lekk ma garab laa wax de Moussa moom garab lañ koy fay yëcc rek garab ci garab garab dafa tama waxtaan ak garab moom <laughs> ba mu ba yàlla ba yàlla a wax yow ca xurwa hmm. yaa Moussa yi ana ala garab waxoon suy nag ba feebaree garab na ko lekk ma <laughs> ah, soo may lekk waa fasifa uka sa saafara yeesu la amee bi ci man ci man ngay ngay ngay wéree soo bëgg wér ci man mii boo ma lekkee ci nga wéree <laughs> dégg nga ah faqaala la ah Moussa ne ko ah laa jarama ca dëgg-dëgg nag su ma la waxee an laa ilaaha illallaa huwa as-saafi wa safarkat ah Moussa xaaral xaw na ne buñ ne garab ga rek moom mooy jëmi saahiru yàlla Moussa ne ko ca dëgg-dëgg man xam naa ne benn garab mënuma saafara benn gëj mënuma saafara benn ñax man yàlla moom safara waaye boobu Moussa dafa nekk ci yoonu yoonu mari laa jarama an laa huwa asaafi ah daa def ko bañ a nekk su ma war saa rek gannaaw loolu nag sakkaa jàmbatal naa mara dama feebaram ba ilaa jëm ci laaw taala mu ne ko laaw feebar naa de faamaro mu sant ko bi ak li tilkal asbat mu ne ko Moussa ngaa bëgg mu ne ko dama lekk garab ga doon wax ne ñax ga doon wax yow dama lekk ko xam ne mooy wilaay bi nga ñoom buñ paree dañ foo ne nabi laahu rek de seen patron mooy laahu daal ñoom ñoo xam ci seen patron dëgg-dëgg ñoom yonent yi xam kii seen patron dëgg-dëgg laahu lañ jàpp ne mooy seen patron te Abdoulaye ba moo nekk di jàpp moo moo Rasulullahi moo nekk di mooy seen patron léegi nag patron moom di am dikk nekk nekk si garab dikk na ko Moussa lekk ma te wér mu ne ko dégg mënoo mënoo faj laaw di wala mu dem ci laaw laaw ne ko dama lekk garab foofu <laughs> waaw <laughs> ah ah <laughs> yow dégg moo tax ñu ne nit yàlla yi duñ xeeb dañuy wax ne ko ah, man daal yàlla daal lii daal ja maa ngi koy maa ngi koy lekk sa ndigal laa lekk garab de moo tax booy faju yëpp maa ngi faju de xam naa ne comprimé bi mënuma yow da ngay faj mu ne ko nag faamaruhoo bi ak tilkal osbati akala Moussa dem lekk ko fortaat doo lekku mar doo feebar mu gën a feebaraat <laughs> ah man de yi moo jaaxle man yàlla ma yow laa yaakaaroon ci wéral nga nga dama lekk géej gi waaw puisque Moussa xeeb xeeb gam xeeb garab ga moom la ko yàlla woon na nga xeeb xeebuwul yaa ngi xeeb xeebuwul de acca gënal a ak fa dal ma dal fa saka mu jàmbar illaa jant yàlla ta àlla fa amaro mu sant ko bi saa bi na dem illaa bi dem ci docteur mu ne ko Moussa kon demal ci docteur ba xam nga docteur ba léegi dootu dootu dootu gajj docteur ba nit la léegi ah faramasa ba mu demee ila tabib yi jëm ca docteur ba wa saka ilay mu jàmbatal koo ah, la ko tan moom itam baax li tel ko usbati mu ci docteur docteur bi ne ko demal ñax sàngam demal nga ko xam nga kon docteur bi ak déggoon ak yàlla ala xaw ye gat ji booja mu ne ko Moussa naka tey ñu ne demal demal eh, de bi nga eh, eh, wala dina ma am ngeer ga nga fàq ca yéy la ko yàlla santoon ba ko sante moom mu jëfandikoo ko yokk feewar docteur bi dikki ne ko demal ca garab sangam nga lekk ko ah mu dikkaat euh, bi ak li tilkal asbatu fa akalaa fa bari mu lekk ko ci deuxième fois bi mu daal di garab ga bañoon na ko yow dama lekk ndax yàlla ma yërëm mu jikki laaw laaw ne ko dama lekk garab ga mu dem nekk garab feebar feebar bi yokk mu diwaat ci docteur docteur bi naka dama nekk garab garab gi docteur jox ko bi ko joxe mu daal di wér xam nga ndigal lu jaar ci yoon yoon bi maanaa loo loo gis am yaraas ndax yàlla bu lay faj dafa am fu mu koy jaarale ah léegi nag fakka fakkaala yaara Moussa ja ah gis nga de Moussa au lieu mu ne yàllaahu de fii mu ne yaara <laughs> ndax euh, yow xam moo tax gis nga fi ne fii ngay xamee gis nga fi ne eh, gis nga boo yaroo fii da ngay da ngay sàmm yaraas yaraas yi bu fekkee ni préfet moo fi nekk sous préfet sa dossier na jaar ci moom doo ko dem ci préfet dem ci gouverneur dem ci ministère de te doo ko dem na waaye man xem naa ci maag maag man bàyyi laa ci président wala nangam nangam du sotti de <laughs> jaar mu war a jaar léegi nag yara maa sa lii lan la faqaal la ko raboo rabombo subhaanahu wa taala cey gis nga ko de waxul laaw de laaw rabombo waxa moom ndax subhaanahu wa taala rëbb na nga ko foogee ak rëbb nekkee rëbb bu ko neexee nekk nga gis nekk nga gis su ko neexee nekk euh, euh, médecin bi su ko defee xàmme woo rëbb ci ba mu nekkee nga ji ba mu nekkee médecin ba xamu ci dara akaan que rëbb fa nekk rek ndax nga ji man nga ji am ndax nga ji nekk rek saayu ndax docteur saayu xam na ndax bërëb benn bi kenn rek moo fi nekk waaye itam woto subhaanahu wa taala ne ko safaytuka saafa naa la min xayri mudaawaatin ci lu nga faj feebar nga ma wéere la saa nga faj loolu amul mu ne ah, lu tax ma def ko li taalama pour nga xam kudrati sama doole dangaa bëgg a xam ne ma xam doole man naa laa faj sans médecin pour nga xam suma doole wasafaytuka saafara la bin hasisi ci ga jiga li tax ne ma pour nga xam hikmati sama xereñ ci hikmatu ilaaya médecine bii ñuy doxal nii mooy combiné hikmatu ilaaya moo yàlla fi doxalee xereñam gi rek waaye peri peri faj mi pikiri faj mi suri faj mi waaye pour ma daal sama hikma ci loolu moo tax nga bëgg a xam dama laa jàngal sama hikma wa surtout doon naa fi ma rika sa feebar bi ci garab ga lekk nga ma yokk sa lu tax ah li taaku xaar yi ndax dëggu sama not gi ma not wal sëdwate ak sama cong pour nga xam ne man maay not kat bi mooy not garab ba ah ne ko bul faj wala maa ne garab gi sa war pour maa ne sa feebar boobu pour nga xam nag sama dëggu ma yàqal may xaxaaru ah wa axal tuka Euh, tourné na la à la tëb à la tëb bi maa la tourné demal ca docteur bi bi nga dikkee ci ma ne demal ca médecin ba lu tax ma ne ma ma orienté ba fa li taalifa nga pour nga xam tartiba moom lëkkati te sama organisation nguur gi nguur gi dafa am yoon mm-hmm. pour nga xam yoon boo dem demal ca médecin ba loolu tax ma orienté la ci médecin pour nga xam sama nguur gi ni mu dox ni ma ko ni ma ko doxale ndax médecine du ko ko def yaa yooyu yaay médecin bi yaa doxal sa bopp médecin man maa def sama médecine ci yow pour nga ciy fajee xikma bi rek la kon nag pour nga xam nag ah maa la ko defal nag kon nag pour nga xam bu ëllëgee bu ëllëgee lii laa war a def waaye oustaz Gueye du fee du fa jàngu médecin ngay fajee ci moom damaa bëgg boo ëllëgee xamal fa nga war a jaar jaar ci médecin yi yow bul dikk ci man direct dikk ci man demal jaar fële kon nag la tax mu wan la kon nag orienté la demal ca garab ga demal ca médecin ba pour nga xam nag man maa noot lépp pour nga xam ne mën naa crañ moo tax ma defee la lii est-ce que kon moo tax li tax riba tarte mamlakati man mii sërëbu bi asaafi maay fajkat bi lii man asaa ku ma neex bi ma asaaw ci li ma neexee yàlla na yàlla nañu yàlla faj ca na ko neexee ca na ko neexee man may faj ku ma neex ca na ma neexee ah mbaa dégg nga wax ji waaye lii nag soo ko xamee da ngay daane nekk nit ko am équilibre bi maanaam nit koo xam da nga am indépendant doo da ngay gëm yàlla te gëm ko gëm koo xamante ni ah man ndekke man docteur mënu maa faj gaj ji mënumaa faj waaye ay jaaro waaye lañ pour ñu ma pour faju kon nag yàlla dafa bañ nga ne man yàlla rek laay jëflante déet am naa yoon nag jaar si yoon nag jaar yoon kon nag moo lii laa bëggoon xam li taarifa tatti ba mamlakati ama ana saafi liman asa bi ma asa wa tarab intaha min imlaayi aleyna rajula xam ne Cheikh Tidiane lam ñu lam ñu doon dicté indi nañu woy xam ne moom la xikma bi yàlla dawal ci biir ah xikmaam bi dëgg-dëgg yàlla maarifa daal dëgg-dëgg yàlla man damaa xool xool xool xool xool ne ñun àdduna ñoo tardé tardé miti miti miti ba ñu xeexloo wal yi wér lañu wal yi rek la ñu indi problème ndaxte mboolem organisation yàlla bi dafa am lu mu ko tey mu ngi doon dox ci daayiratu lu xilaafatu jamonoy aadama ma ngay daw ci daayoo lu ci wilaaya ci yonent gi mi ngi daw ci jamono wilaaya gi jamono wilaay bi mm-hmm. tey fi la liggéey bi nekk mm-hmm. yow na nga ma ne man sama yoon ci yii yëpp mm-hmm. tey nga ne salat man kay wax ko man kay yonent rek seet am na ñoo xam ne tey xam nga luy luy wax ñu ñu ne alquran rek man addis waxuma ci dara tey fi nii ba yow dafa yow waaye di nga xoolal ñu nga xoolal ñu ne alquran waxu taaye alquran wax dëgg ko doon xoolal alquran waxu taaye ah al alquran di sa sital yi li alquran yow yonent bi du jëmm jëmm alquran yonent bi lu mu wax maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun kon nag lu mu wax du dëgg waaye waaye dëgg-dëgg yàlla bu fekkoon nit mën ngaa baax laa xam waaye ku bëggul baax nag kenn mën ko baax la ma dem ci beneen question te tëj foofu sa atoo laa xam xan xaqiqatil makri wala yi yéexi ko makru yi makru mooy maanaam plan boo xam ne yaa ngi koy def pour tirian wala pour nax waaw dëggi dëggi makru cheikh mooy la jar naa laaj paa jaba tontu radiyallahu anhu bi qawli xaqiqatul makri dëggi dëggi ay jay jay lañ ko tuddee koo moom isaaru ni amati mooy feeñal xéewal xaalal xam bi ci jaam woo ba soxaa ak yaatu la ñel ko léegi nag boo bëggee yàlla ne ma ngay jey yàlla mu feeñal xéewalam ba sa jaam yaatal xéewal ka mu wér kekk am piix ñàkkul dara jay la ñi ngi koy seet ba xam waaw léegi nag ma waaw bàyyi ko rek ma seet ko nu mu koy nu may def ndax dana yàq alal ji ma ko dénk wala dana ko jaarale li nga xamante ne moom laa bëgg wala mooy def moo tax nit yàlla yom buñ xewal jikkoon li ngay jooy bu problème boo feebar amee ñuy ree ndax su fekk inna ma'al usri yusra foo gisee problème yomb yomb nga ànd ak moom kon nag ñoom bi gisee jafe yi xam ne yéen isra mi ngi ñëw si bañ gisee jafe-jafe yomb yomb yu gën a xam yow jafe-jafe mi ngi ñëw si kon nag yàlla boo bëggee xam ne huwa ishaaru ni amati alal abdi wa basta bastataamu fi ko laañal ko su ko defee rek su ma yidri joo mu koy doxal ilaa xaayatil xalaaki ba mu dem ci day xalako mu yàlla nag da ko jay nag da ko nax nag mu yore alal ji di ci tiitaru di ci tëggu di ci ci jayu di ci jayu boobu mooy alako comme nga xamante ni tey dem ba nekk premier milliardaire ci monde bi sa xel dañu nan la ñuy fexe yokk monde bi gën nañ wàññi nit ñi <laughs> ah loolu tubaab yi li àll ju bari ji moo ne nañ def li ñu def laa ah, ne Israël gii tey ba Biden nee na buñ ko rafa raafoon dañ jihaat beneen Israël ci bi diggante diggante arab ndaxte Israël bu fa nekkoon ñoom seen xel daal ñoo ñàkk fay <laughs> de nga fi mu ne nii loolu nag ñu jox jox nit ki alal yaatal xéwal ga mu wér takk am dëkkuwaay yu neex am xéwal gu neex am dëkkuwaay lépp lu nekk su ko defee nag ñu ko ñu ko cay jay nag da ko ca jay nag ilaa xëy na xalaat mooy jay lan nu mu gën a nu mu gën a yëngatu rek ci ay caay-caay xalal ja yokk nu mu gën a yëngatu alal alal ja yokk mu naan ah waa affaire baax ah, diw diw diw kooku la yàlla waaye kii kii la yàlla walu <laughs> waaw yàlla walu ko de <laughs> yaa seetal boo bëggee napp jën xam nga ne moos sa mburu ma ngay jën da ko def ci jën wa da ko def ci onze ba bëgg loolu la ñàkk mburu jën nga bëgg am <laughs> ah lii nag moo tax gis nga nga gis nga gis kii nga gis ah, da nga maam ah, ah, jarax nga jël sa gert da nga maam da nga maam jël sa poso def ko ci xam nga ne yéen a a jarax eh, gerte mu dee nga bëgg de <laughs> kon nag lii la war a xoole ni kanaa borom alal bu xamee ni day toog nag alal du ko jeeti xaaroo na du ko rayoon du loolu milliardaire ba dem léegi nag mu ne kii nag Moussa nag fi ne danaa ko sóor nag Moussa ndaxte borom alal ju jubadi bëggul waarante kat bu jub borom doole ju jubadi bëggul waarante kat bu jub su yox rek mu ne man lay wax waaw alal bu la ko yàlla mayee soo ca defut nangam bu ëllëgee nangam mu ne ah man la de waaw nguur bu la yàlla jógee nguur defoo ci nangam mu ne ah ma lay gaaral te yow yow gaaraloo ko léegi nag su ko defee nag nga jox na waa baax na dinaa ko duma dinaa ko yar ba mu may wëccoo ci yi sun surnaal yi surnaal yi may wëccoo ci nii dinaa ko jaar fii waa dégg waaw xaaruuna ah. ak xaaruuna xaaruuna xaaruuna xaaruuna ak xaaruuna bokkul ah, xaaruuna xaaruuna ina xaaruuna min xawmi Muusaa am doom doomu ndeem la woon de doomu ndeem moo ko suru ak ndax alal rek kon nag lii nekk ilaa xaayitil xalaaki fi tilka ni amat yàqoolu wax na subhaanahu seet na wa taala ah, ay yaxsaboona ndax nit dañoo foog ñoom borom alal yi annama ne la nga xam ne nu muy duhum dañ leen koo sarwi bii co milliards ci alal ndax milliardaires yi dañ yaakaar ne milliards yi leen jox ah ah wobba ne ak i doom jox leen i milliards jox leen ay doom ni ko tey ay soldats ak ay armée ay doom nga xamante ne ay dak ma jox leen alal ak i dak ndax borom alal foog fekk am na ay dak ndañ foog ne alal ju bëri li mu jox ak i dak nu saare xoon dañoo gaawee la om ñoo leen fil xayraat yi dama leen gaaw jox leen yiw lan lañ yaakaar mbaa dañoo bon alal yi lii ma leen jox ci àll ci ay ak i dak ak i ay travailleurs usine boo xam ne ay junni nit ña ngi fay liggéey yëpp ci sa ndigal nga nekk ci loolu nag da ngaa bikk dee tiitalu seen kaw dañ fa ne mbaa dama leen gaawee xiwal ah dama leen gaawee yekk déedéet bal la yas oroon dañoo yëgut laa yas oroon dañoo yëgut ñii yëguñ li xaw suñu yëgoon li xaw xam ne la ma leen jox ah nu ngeen koy liñ jox liñ jox jën bi nu ko tunu de oos ah. ab oos laa leen jox noonu de lekk dee ah waaw ah, aba waaw lekk dee dañu mel dama leen jox lekk dee de bari na alal joo xam ne ngeen bëgg gisee ko de yaa xamul waaye alal ja lekk dee la yàlla ñu ci yàlla mos a ndaxte alal ja moo lay jeey jeey jeey jeey seetal wallahi maa ngi koy yoo nañ ko bàyyi foofu daa bëgg <laughs> a daa bëgg a bëgg a bañ a wax ay xam nga léegi léegi ngay toog su fekkoon ne xamoon nga yonent bi wax wa mën naa wax yonent bi yonent bi milliards yi nekkoon ak moom lañ dépassé ci alal pour euh, euh, euh, biisi ko yàq ko seetal toog nañ bañ demee bañ pare dem nañ benn benn bés mm-hmm. ñu ne nañ réunion ñu ànd ak jam ñun Abu Talib ñu waxtaan ak moom mu oo gonem gi léegi ñun yàlla jox nañu lépp loo xam ne soxla nañ ko nañ ko seet su dee alal la bëgg na wax ñu dajaleel ko milliard mu nekk tey milliardaire romb ni ëpp nañu ñu d'accord nañ ci loolu benn wala kër yi gën a rafet ci dëkk bi tey kër gum ne laal gum ne bëgg naa ko ñu jox am nga jigéen ñi gën a rafet gannaaw jabar jigéen la bëgg jigéen ñi gën a rafet ci lépp ko jox ko li bi ko joxee da noppi ah <laughs> dégg ah, yaakaar gi nag ah booy bi kay booy ah, ah, la bëgg ñu dikk nag bañ dikkee ñu toog Abu Taalib ne ko ah Mouhamad sa mbokk yi ñëw nañ de dañ bëgg waxtaan mën nañu wax mu ne wax leen gars yi ñu ne ko daal ñun pare nañ lépp lu mu bëgg ci alal suñ alal na ji amul léeg laa kenn du ci teg baat kër yaa ngi lu mu bëgg na jël kenn du ci teg baat jigéen yaa ngi ni tey ba tey ak ba tey su bëggee ñu fal ko awee ñu fal ko nguur goo xam ne di di diir lëm ñu fal ko mu nekk buur mooy ñeenteel ñeenteel kii bi ñu wax a wax a wax ba pare te rek ci sartaam mu bàyyi xas xas suñu yàlla yi na bàyyi fi xas suñu yàlla yi su ko defee daal li ñu wax nii ñeent yi ñu teg ci loxoom léegi mu ne ko ah Mouhamad sa mbokk bëgg nañ ci mu ne ko bàyyi wallaahi buñ jëloon jant bi teg ko sama loxo ndeyjoor bii jël ah weer bi teg ko sama ndeyjoor bii du ma bàyyi sama wax yii yëpp tànk duur dañu maa fekk si nangu li ma nangu ñu ne ah. kon nañ jox kii nga xamul ci nañ ko hamburger waaw ku xamul ku la nax xam ku la waaw kay <laughs> léegi nag boobu dañ ko ràgg nañ ko hamburger nag léegi nag hamburger ko bu ko kenn tudd bu kenn tudd teen moom bu ko kenn taasati bu ko kenn nayatu bu ay loolu mu nga dégg yëpp loolu def lii yëpp borom alal yi li ma lay wax ne man dañooy ñun ñoom jàng nañ ah, booy óoti yàlla buñ la joxee alal soo nangu rek ñu xam ne yow te tey moom lañ rey ñëpp tey gis nga fi ne nii boo gisee ma bëgg a xale xalaat taal téere ci loolu mooy démb rek laa ko laa ko laa wax rek léegi ñoom dañ yaakaar ne alal mooy àddina kii daal nañ ko nax te nag léegi nag soo dee nitu àddina soo dikkee ñu dëgle ay alal dikki dikki day tey ci Dakar ñu may de teere yoo xamante ni ay cent mètres teew kii nga wër ah te man kay président waaw moo fi nekk di ah mu woon Pa Mbaal ñu bëree bëri ku ci mu ci xaw mu ko jamono bi ñu toll ak ndu tuuti kon nag mu ngi nii nag gis nga alali àddina ji tey da ngay yow nekk ci ay taalibe taalibe yoo xam yaay seen sëriñ ñiimee leen waar ci dëkk looy wax bu ndikkee kay alhamdulilah di dey def na loxoom ci nenam ci daje bi moo xam màggal la wala siyaare wala gàmm def na loxoom waaw def na nangam def na nangam waaw def na nangam kenn ku ci nekk yow li ngay tëggee taggaate nga fay nekk ba mu jeex taalibe yi ñu ngi leen di gërëm ah dëgg yàlla def ngeen seen liggéey def ngeen nangam def ngeen nangam waaw léegi nag loo yóbbante taalibe yi ci yàlla waxal ci yàlla loo ko fa dégg de taalibe dama leen di waxal nag diggante taalibe ak sëriñ mënuma leen dugal àjjana mënuma leen musal mënu amu seen xéwal yi mënuma ci dara yàlla mooy maye wërsëg yàlla mooy dugal àjjana yàlla mooy lakk léegi nag lay tax ngeen mucc ca topp yàlla jaamu yàlla bàyyi fen nangu bàyyi nangoo def dëgg ku ko ci def maanaam dama la dara ndax da nga ko dégg aha ndax lan am na ñoo xam ne dikk nañ fi te doo doo tudd sàngara ah? am na ñoo xam ne li nga dañ ci nekkee doo tudd njaalo njaalo bi góor jigéen da nga dégg ku ci warat ah formation da nga ku ci wax chiites yi nga xam ne ñu saaga Babacar Ousmane Ali da nga ko dégg ku leen ku waar taalibe ci gàmmu gi dégg ci dara ndax yëpp ay milliardaires la ñu la wër ah kon doo ci wax ah alal joo xam ne kii la jaar jay na alal joo du wax loo dëkk alal jay joo xam ne boo si nekkee da ngay nekk ci dëgg du jay kon nag yàlla na yàlla jox dëgg woo si melokaanu jaam jaam an yàpp na fa nekk daay man faaw daay man faaw xaay fan mu ragal ci rëbbam ba day ragal rëbbam daa laa yamunu du wóolu xaala na bakkanam saay sam bi ndax inna nafsa la amaaratum bakkanam ba du ko óolu bi xaalin ci benn situation déedéet situation àddina bu mu nekk lu àddina ba rëy rëy ci moom xoolul bakkan mooy jàmm la walla yéen ma inu dal xal boo xolam min xaw fi xasaabilaay ndax ragal mbugal yàlla lum def def lu baax man tabax naa ay jàkk man def naa ay nangam loo def def lu baax bakkanam moom du dal mukk ci ragal ne yàlla dana ma duma qaala wax na subhaanahu set na wa taala wala si na gaa yàq na xum ñoom musiqoona ñu ngay jàq min asabira biir ci mbugalu seen kon gis nga jullit ñi xam ne mooy jaamam yàlla mooy jaamu yàlla mooy koo xam ne dafay tiit ndax yàlla dama dama duma tey nag ñun dañu am benn musiba mooy lan day fone boo nekkee taalibe sëriñ bi rek mucc nga ci safara tey ñun dañoo dëggal taalibe yi moom kii ku ko topp rek mucc nga déedéet wala tey ñenn ñi nga xam boo tarbiya rek ñu leen tarbiya xaalis xaalis moom moom dugg na àjjana tarbiya jotadoo àjjana dara damaa xam ne da ngay wax lii dëgg li nga xam ne moo ñu rey li ñu rey tey yaakaarloo taalibe yi lu xam ne amul soo leen ko yaakaarloo ñuy jël si alal jël jox nger la boo déggee nger dëgg dëgg dëgg dëgg mooy fenal koo xam ne la nga xam ne amul mu jox la alal waaw taalibe yi na jox bu joxe addee moom bu joxe alal sëriñam rek bu dee nga su ko defee moo tax nga gis bu seen sëriñ ñu deewoo ca bu paree dañ di laaj seen caay caay moo bi nekk de déedéet lu jaam bi jublu wala seen hum musrikoona min asaabi rabbihim ah ina asaaba rabbihim ndax du may seen borom xayru maamoon du ñu war a wóor wóor na ma ne yàlla du ma kenn wóor ko wóoroo wóoru mukk loo jëy lopp lu wilaay gën a rëy loo jaamu-jaamu yàlla ak loo mën a def war a wóoru ne man man koy xay xay boo bu la seytaane wóor ne ah yow kay mucc nga yow yow li nga liggéey sëñ bi diw mii la defal a bi diw mii ngar gi ngar li sëñ bi diw xaj yi nga xam dox sëñ bi kii na baax na déedéet bu la taxee nga ne du ma xoor man naa bañ a xoor ah déedéet xam nga léeg-léeg nga gis ci nit ñi mu ne yokk yi wala ay teraanga yi ma def yokkee boo boo boo la neexoon sax wala bu jaamu ci yàlla mucc nga xam nga xadi xadi bu ñu ko doon wax keroog <laughs> benn benn jigéen ak sari bokkal ba mu ko defee teraanga mu ko yow bu la neexoon yàlla loolu <laughs> waaw xadi bi toog <laughs> ah loolu jàmm la ah kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ci ay waay